benn gis-gis la am ci dëkk bu sell bi di Tivaouane ci jafe-jafe yi nga xam ni ñoo ngi koy jànkonteel ci tabaski gi muy xar xar mi nga xamante si moo waral coow li coow li manqué waaye wala it ñu ni xar dafa cher ci biir loolu ci la ñu doxantu ci fi nga xam ni moom mooy dara lii nekk Tivaouane jàkkaarloo ak jilo yi ñu wax ñu lan moo waral xar manqué wala yi xar cher moom mi nag mi ngi ñu xamal ni jilo la waaye daan gis-gisam moo di xar yi lii moo tax mu daal di cher. waaw client yi moom mais su lu ñu mën a wax si ñoom ku nekk li nga yor euh, boo tolloo fi nga tolloo rek boo fa fàqee comme ni ñu wax euh, dinañu jafe-jafe du am mais li gën a doon problème mooy nga yor cinquante bëgg xaram cent mille franc loolu moom du du du du mën a sotti mais nag ba yoree sa cinquante mille nga gis xarum cinquante nga tolloo moom nga jënd ko jafe-jafe du du mën am daal waaw ngir loolu fekk nañ fi benn client boo xam ni moom it xar la doon wut si waaye moom itamit jàngatam daan moo di xar yi ci jëmmam lii moo waral xar daal di manqué. suba ñaari xar 330 000 laa leen jëndee te dama ko booleeg waxaale wu metti woo xamante ni ñu doog maa jaay. Euh, parce que aussi am na loo xam sax du xel dem jënd benn xar 150 000 ñëw bëgg koo jaay 250 000 jël 100 000 gàll ko ci kaw xar mi bëgg koo teg doomu aadama yi metti na bi ci des aussi di wax ni ñi nga xamante ni ñoo dëkk Tivaouane bari na ñoo xam ne aussi vraiment dañuy yor seen xaalis romb fi jule yi nekk Tivaouane dem Touba Toul dem ci yeneen dëkk yi jënd ji fa bàyyi jule yi nga xamante ni ñoo nekk ci Tivaouane loolu aussi man rafetlu ma ko man de sérieusement par El Hadj Mbaye bu ma yoree xaalis ni may def mooy ñëw ci jule yi nekk Tivaouane jëndante ak ñoom mais ñoom aussi sérieusement TIV Info maa ngi lay xamal ni la xar yi ren cher na jule yi jël nañ xar yi yóbbu ko ci niveau boo xamante ni yàlla dimbaliwul nga am nga am nga am tuuti njàmbaar boo def ndànk ginaar ngay tabaske suñu problème li waral dara di géey mooy euh, dañu amul marché luuma boo xamante ni moom la ñuy def mais dégg naa léegi am ku ma wax ni ma daral bu bees bi nga xamante ni ku municipalité bu Tivaouane créé na ko dañ ko naroon ubbi avant tabaski avant tabaski mais xataay bee ñu bàyyi ko mais après tabaski ñu ngi créé ni jàpp nañ benn mercredi boo xam dañ koy def luuma fu waay na ci àddina dañuy daje mercredi boobu Tivaouane ca daral ba ci la ñuy ubbi sax li nga xamante ni mooy daral bi yaakaar naa ne bu fekkee ni yàlla def na am luuma boobu daral yi nekk Tiwaawan benn daral lay doon mooy daral bu mag bi ñëpp di fa daje di fa jaay axra bi ci des aussi am na beneen inconvénient dégg naa ñu ni frontières yi ubbeegun ko aussi pour xar yi mën a ñëw loolu aussi bokk na ci li waral du Tiwaawan kese ah même yeneen dëkk yi léegi rek maa ngi dégg ci internet bi waa Thiès di coow ni ñoom li leen heure bi daan na fekk koñ boo dugg gis ay jogale xar mais vraiment fi nekk nii ba tey ji ñu naan des na 4 jours 5 jours gisuñu benn xar Dakar aussi situation yi noonu la demee wax nañ ni ba tey frontières yi ubbeeguñ ko xar yi duggaguñu kon li ñuy wax mooy dañuy wax waa réew mi waa gouvernement bi ñu jàppale ñu ubbi frontières yi parce que Sénégal dafa dëkk boo xamante ni ñi ñiy tabaski dañoo bari mënuñu yam ci. xar yi ñuy yar ci kër yi rek mënul satisfaire ñi nga xamante ni ñooy tabaski kon vraiment ñu ngi wax ñi nga xamante ni ñooy bralon yi nekk ci kaw ñu ñaan leen rek ñu ubbi frontières yi xar yi dugg si pour néew di doole yeeg ñi am doole yëpp. naka noonu feneen ci beneen jillo ci biir Tiwaawan ba tey moom daal mi nga xam le ni mi ngi yëg boppam bu baax ci li nga xam ni moom mooy njaay mi muy jaay ay xaram da di kay ñenn ci askan wi ñoo bëgg lu yomb ndax dañuy yor ci seen i poos cinquante mille bëgg yootu xar moo xam ne dafay daal di jar li nga xam ni moom mooy ñaar fukki ju nekk lu topp non loolu moom xam nga li ko waral mooy nit ñi ñoo xaw a ragal nit a ragal parce que boo waxee ñu ne xam nga xar yi mënta dox parce que gars yi dañoo yokk xar yi dañ ko seeral xam nga aussi frontière bi nga xam te ne dañ ko war a ubbi gars yi ubbi wuñ ko te léegi nit ñi bëggatuñu xaru coggal yi boo leen waxee ñu ne xaru yar moom la ñuy tabaskee mais xaru yar moom mënta yomb nag loolu rek moom moo ko waral xam naa moo tax gars yi tiit mais nanu ñëw wàññil nañ leen affaire yi nanu ñëw ñoom ñëpp bu la ñu wàññi bu ñu ñëwee luñ ci fay dañ koy jël yóbbu ci kàttanu Ah, si y voyagez, tamit client bon peut-être que nga mais à quel prix parce que je me dis que ni xar mi 130 000 140 000 150 000 Si démé ci all bi mom ngay 140 000 plus ciona c'est le transport ba tey moom it eh, ci beneen daral ba tey ci dëkk bu sell bi di Tivaouane waa ji moom mi ngi xamle ni daan ay xaru yar la yor te xaru yar moom du jël ay xaram sonn ci ba heure bi di ko wanteer na nit ñi xool lu jaadu bu ko defee ñu mën a am xar mu baax. non dinaan amul xar mais am nañ xar xar moo xaw cher parce que tamit ñun dañuy dem jënd ji ñëw jaayaat am na ñu ñuy élevé mais dañuy dem jënd ji waat tamit ñëw doog a jaayaat foog tamit ñu teg ci dara pour mën a am dara. gars yi bu ñu bëggee ñuy dañuy ñëw yombal sunu xar tamit mënul nekk parce que doo dem jëndee cent mille ñëw jaaye quatre-vingt mille amul amul bénéfice. non dañ ni heure bu ñu ñëwee ñun xar bu ñu tegal cinq mille francs wala dix mille francs ñu jaay xar yi parce que toog fi tamit dinañ jox lekk chaque jour xar yi lu mu gàtt gàtt dinañ lekk benn sept mille wala huit mille kon loolu pertement la si ñun ñun ñun loolu suñu xar boog ñun. ñun ñii fii akapes loolu ñu teg client yaa ngi ñëw moom wax dëgg yàlla ñu ñoo ngi jaay macha allah client yaa ngi ñëw ñun loolu lu ñu si tegal ñu jaay ñun suñu xar 5000 francs 10 loolu ñu tegal ñu jaay teewuñu xari quoi fii moom affaire yi méttiwul suñu bagage méttiwul affaire comme li ma leen wax rek ñun bu ñu tegal 10 000 ñu jaay ku ñu tegal 5000 ñu jaay ñun suñu affaire méttiwul nañ ñëw fii akapes buntu akapes lañ nekk bu ñëwee fi ne leen sédd ay affaire gisa xar yaa ngi nit waa ji moom euh, tarkal la mën nañoo xam leen ni daan moom mi ngi sant yàlla bu baax ndax ñi ngi ko fekk ci daral bi jënd na am xaram ba jàpp ci buumam mi ngi sant yàlla bu baax ndax nee na lim doon wut si daan am na ko ah man de li ma mën a wax mooy bi ma ñëwee fii daal am naa fi xar bu baax ci prix bu baax daal donc li gars yi di wax naan xar yi dafa chair bon gisuma loolu daal wax dëgg fa yàlla ñëw naa fii jaay nañ ma xar bu baax bi ma ko yóbboo sama baaba kontaan na trop daal moom. ñu mbokk internet yi lii la leen waa TIV info indiloon muy xewe fii ci Tivaouane ñuy wër ci dara lii doon xool naka la ñuy euh, dundee li nga xam moom mooy wàccaay tabaski waaye xar yu seer yi ban gis-gis lañ ci am njaaykat yi euh, jullo yi dégg ngeen bu baax li nga xam ne loolu la ñu wax ni moo waral xar daal di manqué kon nag ñi ngi leen di jox euh, dig daje beneen yoon ci marché bi di ñaanal ñëpp nag yàlla nañu am xar tabaski ci jàmm ak salaam.